seen beneen actu du jour ami internet de 24 actu Covid 19 di jàngoro ji lëmbe àddina wërngal këpp fii ci réewum Sénégal jàpp nañ ne juróom téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay test yu ñu amal juróom fukk ak ñeent ñoo ci daal di ñëw positive juróom-ñaar fukk yi ak ñett di ay cas contact fukk ak benn di ay cas communautaire cas yooyu nga xamante ni moo jaaxal àddina wërngal këpp mën nañoo jàpp ne cas communautaire yooyu la ci gox yi mu feeñ bokk na ca Médina am na ca benn Grand Yoff am ca benn Patte am benn Gueule Tapée am benn Amitié de am ci benn géejawaay am benn Nioro am benn Ziguinchor am benn Touba am lu toll ci ñetti cas pour fàttali rek ne fii ci réewum Sénégal am nañ lu toll ci juróom-benn cas grave yoo xamante ni ña ngi ca service de réanimation bu hôpitalu fan benn Ziguinchor am lu benn hôpital principal am lu toll ci ñeenti cas mën nañoo jàpp ne ci xayma communiqué bu bés bi fii ci réewum Sénégal cas yi mi ngi toll ci. ñaari junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci ay cas moom la ñu amee positif juróom-ñetti téeméer yi ak ñeent fukk ak ñaar wér nañu léegi li ñuy saytu ci hôpital yi mi ngi toll ci junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett ñu ñaax ba tey askan bi ñu gën a respecté loolee nga xamante ni moo di mesure barrières yi ngir mën a xeex jàngoro ji di coronavirus ci Covid boobu la ñuy dese ni wax bi la yoon ci ki nga xamante ni moo di Macky Sall wax na ni ci ay kilifa diine nanguwuñu benn yoon ñu ubbiwaat li nga xamante ni moo di jàkka yi démb la ko xamle ca conseil des ministres ngir firndeel waxam jooju léegi gis nañ Thierno Moudani Mountaga Tall daal dinay xamle waa communauté omarienne yi ne jàkka ji dinañ ko tëj ngir xeex jàngoro ji di coronavirus kon mën nañoo jàpp ne Thierno Moulane Mountaga Tall joxe na ndigal ngir bañ a ubbiwaat jàkka joojule ngir xeex jàngoro ji di coronavirus. ba tey dañuy dese na ci décision yooyu nga xamante ni jiitum réewum Sénégal jën na ko jëme ci xeex jàngoro ji di coronavirus génn bu mujj bile wax na jëm ci école yi ne dañ élèves yi danañ delluwaat le 2 juin bii di ñëw gis nañ ki nga xamante ni moo di Maguette baax di présidente du collectif daal dinay décider ak l'ensemble des présidents des gouvernements scolaires ngir amal ab point de presse ngir wax ak population sénégalaise yi ka bañ nañ ngir delluwaat sa école ba le 2 juin ndax assuré wuñ benn yoon seen sécurité lu bari ci élèves yi nekkuñu Dakar te ñenn ñi war nañoo delluwaat seen dëkk te ñu bari ci ñoom amuñu ay carte d'identité scolaire ba tax ki nga xamante ni moo di màgget Ba bañ na ngir ñu delluwaat ca école ba le 2 juin ñu wax ci leneen soxal lool wàllum société l'activiste bi di Karim géey daal di koy tëj lu toll ci ñetti weeru kaso démb ci àllarba ji la ñu ko doon àtte fële ca tribunal des flagrants délits de Dakar la ñu ko jàppee rek moo di ab vidéo boo xamante ni publié woon na ko ngir naqarlu convocation boobee nga xamante ni def nañ ko imam Léona Niassène ba tax kii di Karim Gueye daal di nañ koy tëj lu toll ci ñetti weeru kaso. division des investigations criminelles di DIC daal di nañu feeñal benn réseau de trafic. trafic d'armes lu toll ci 178 bombes à gaz 24 pistolets 13 taser 80 matraques plusieurs paires de menottes lii la ñu récupéré bërki démb ci gaaru Petersen ak bu ki def trafic d'armes boobu di El Hadji Malick Diop ak livreuram ak benn guinéen di wuyoo ci turu Mamadou Seydou Diallo daal dinañ leen jàpp ñu bàyyi rek baxam xam fan la wànnante mujjee ki gëtam ci mbir moomu buñ xukkandikoo ci ëttu yëglekaay bii di Seneweb ñi daal di koy jeexaleeg Aminata Assome Diatta nekk ministre du commerce fii ci réewum Sénégal génn na démb ngi defaraat jaayu mburu fii ci réewum Sénégal ndax tere woon nañ jaay mburu si boutique yi léegi jaayu mburu mi ci kiosku yi rek la koy defee distance bi nag dina toll ci 300 mètres ba 500 mètres ak boulangerie yi kon mën nañoo jàpp ne jaayu mburu fii ci réewum Sénégal boutique yi dootuñ ko defati kiosque yi rek ñoo koy def ki xamle yooyu les cadres di Aminata Assome Diatta nekk ministre du commerce fii ci réewum Sénégal dig daje ba ëllëg ak jàmm incha allah.